asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah mardi 2 juillet 2019 ñëw yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey jàppal sunu làmb tey fa la ñuy xëy doore ko yëglekaay bi nag tey Modou Lo la xëy wane ci xëtam mu njëkk ak kii nga xam ne nii moo di Eumeu Sène mu mel ni kii nag bii fa nga xam ne moo di ca TFM moom ñu ngi ñuy ne day ñoom ñaar seen diggante tàngul na fa jër jër jër jër ndax nag baat ak tontonte daal mu nga meloon ni tulli ak màlle ca seenub jàkkaarloo jàppal kii nga xam ne nii moo di Eumeu Sène la mu wax daal moom ne na couronne bi sax da koo tege ne li ko gën a ñor moom Eumeu Sène nee na li ma gën a ñor daal mooy maanaam sama revanche nga xam ne moom la ma Modou Lo yoral mu jox ma ko ci nii wala mu jox ma ko ci nële Modou ne ko loolu moom ndax sa bopp la ndax yow loolu ngay wax du man a ne déedéet li may def kay mooy ñëw daan la récupérer couronne bi yóbbu ko mu mel ni ki démb daal ñaari mbër yi moom yëngal nañu TFM bu baax a baax a baax ba tey bu ñu dem te demee fa nga xam ne tamit moo di ca Leewtoo TV ñaari mbër ñu nga fa Modou Lo itam mu nga fa de di wax ay wax yoo xam ne daal di leeral ci digganteem ak kii nga xam ne moo di Moussa Yacine bay wax sax ca la nga xam ne ni jox na ko ko jëm ci wàllum xaalis waaye dafa mel ni kii daal démb moom jàppal boo toppee vidéo ba daal ñaari mbir yi moom li am ba des mooy defante ba moom taroon na bu baax a baax rawatina nag. ca ña nga xam ne ñoo leen indiwoon di seen ñaari kaa yi ñu àndaloon ñëw ca fa nga xam ne moo di TFM mu mel ni kii nag beneen combat boo xam ne nii day ab defante la tàngoon lool jër bëri ki démb fa nga xam ne moo doon ca fa nga xam ne moo di monument de la renaissance diggante Lac de Guiers ak Boy Niang Lac ak Boy Niang moom bataay ba ci côté xar fa xuufa moom foo ko takk weesu na ko maanaam daan mbirum gàllaaj moom fàttewuñu ko yëglekaay bi moo ñëw tey dina ko wax kii nga xam ne nii day moo di Lac de Guiers numéro 2 mu ngay dànkaafu booy ñang ci confiance boo xam ne yëglikaay bi xamal nañu lay ne Lac de Guiers am na ko wër wër wër ci fii nga xam ne moom la jëm waaye jamono jooju itam booy ñang moom yëglikaay baa ngi ñuy xamal moom kenn la teg bët fi mu nekk ni daal Balla Gaye numéro daal moom la mel ni daal moom la teg bët ginnaaw bu jógee ci kii nga xam ne ni moo di Lac de Guiers yëglikaay bi moo xëy tey di ñu wax loolu keneen koo xam ne moom mu ngay wax mooy rëg-rëg rëg-rëg nag kii nga xam ne nii moo di Forza mi génn fan yi di wax ne bu bëre ak moom buy du buy dem ca làmb ja bu waree yóbbu téeméeri butéel juróom lay yóbbu ndax la muy def mooy daan ko dem ñibbi rëg-rëg nag daa mel ni tontu lu forox la ko def tontu na ko tey ba mu saf-saf ci sunu làmb nee na ko yow Forza noppil awma lu may wax ak yow ndax yow ki la daan maa ko daan muy Jordan kon yow maak yow moom sequnu sax ay wax rëg-rëg a xëy tey di wax loolu ba tey bu ñu continuer nag fa nga xam ne nag moo di sunu làmb ba tey rek dañ fay des nag ak mbirum lii nga xam ne moo di drapeau chef de l'état bi mu mel ni kii nag drapeau chef de l'état boobu moom jàppal ca mbuur la amee woon gis nañ fa kii nga xam ne ni daal moo di bombardier ginnaaw ba mbuur gañee wala boog ba resona Thiès gagné drapeau ba daal tëb ya mu tëb moo kii nga xam ne nii day moo di salemele ci contentement bomba ji nag mu ngay leeral nee na li leer nag lii li muy confirmer daal mooy que ni fii nga xam ne nii day mooy raison de Thiès moom jàppal ni boo ay mbër wala lu jëm ci wàllum lamb daal jàppal ne moom am na fi ba mu doy a doy sëkk moom nee na moom gént ga mu doon gént tey nekk na dëgg nee na daal lii nga xam ne nii moo doon géntam di gagné drapeau daal moom am na lu mel noonu yëglikaay bi nga xam ne nii moo di sunu làmb moo xëy tey wax ñu ko jamono jooju nag waa dakaar moom ñàkk yéenekaay bi wan ñu kii nga xam ne ni moo di Ibra Mbaye waaye leneen loo xam ne tamit am na fa jàppal kii nga xam ne ni day moo di kase aan wala boog Mamadou Diop waaye ñu naan ko kase aan moom mu mel ni nag moom itam am na ñoo xam ne jóg nañu ngir soutenir ko moom nag mooy mbër moom mi nga xam ne dafa amoon ay blessures yoo xam ne ci bëri la ko amoon te boobu ba tey mu toog maanaam loola jàpp yaram wi waaye li leer ba leer daal lamb ji moom fi mu nekk nii mois de juillet bii day boo bëggee dégg moom nar naa jax ndax jàppal bu dee dimanche yaa ngi dem arène nationale double moteur fëgga la kii nga xam ne nii moo di Assane Ndiaye dal di fay jaar le treize dañuy ñëw ka nga xam ne nii moo di bàyyi Ndiaye booy Niang la de Guiers 2 te duñ ca yem Fallou Ndiaye ñëw le 27 juillet góor a soog Tyson 2 mel ni foofa tamit day bax lool lool ba yegg ca waaye Moustapha Diop day ñëw pour le 28 juillet comme seen Modou Lo combat royal te des na yeneen combat yoo xam ne mu ngi ci biir ndax jéey dina ñëw kii nga xam ne moo di sàmbay day ñëw moor mbay ñëw ñeneen ak ñeneen ñëw kon daal jàppal yàgg maar loo ci mën a dégg moom mois de juillet bii moom mois bu nar a xaat lay doon bu dee xaat waaye loo ci mën a dégg dina tàng jër yàgg na ci caméra bi tey doomu ndeyu kempees ma ca Paris salaamaaleykum mbokk yi sur Leewtoo TV yéen nii bu baax di leen jaajëfal di ñëw seen revue de l'arène comme ni ñu koy defee chaque jour di leen wax tamit euh, namoon na leen parce que vendredi ba léegi yàgg na waaye programme yu bëri rek moo ko war doon activité yu bëri ba mel ni drapeau chef de l'état face à face yu fi nekkoon yëpp ñu doon leen ko toppal rek euh, ngir bëgg lu leen neex tey ñu xëy si lundi bi ñëwaat ak yéen seen revue bi si ànd ak euh, Babacar Babacar nuyu naa la. fay naa la di nuyu internet sax mardi la moom. kon ñu ngi mardi tey ah. boobu ah, démb dañoo demee démb dañoo def. voilà démb vendredi lundi yëpp amul refus kon loolu dañ ciy jégalu ah dañ ciy jégalu bu baax a baax suñu sañoon chaque jour dañ leen koy jox parce que tamit comme li ñuy wax rek ñoom yéen yéen yéen a tax ñu ñu nekk fii quoi kon bu ngeen ko gisulee rek ah dañ leen di jégalu daal encore une fois rek dañ leen di jégalu waaw waaw dañ leen di jégalu. daal di daal di dugal si li nga xam ne ni mooy waxtaan bi commencé ko ak face à face yi nga xam ne amoon na fi démb muy diggante Modou Lo ak Eumeu Sène mu nekkoon fële ca. TFM mu nekkoon nag face à face boo xam ne de mu neexoon na trop mais tamit euh, gisoon nañ si benn genre tension bu fa amoon Babacar. waaw waaw neexoon na trop macha allah ñaari mbër yi ñëw nañu doonte guddee nañoo ñëw vraiment arrivé nañu ah bi ñu arrivé tamit dugg nañu toog waxtaan waxtaan wu wu dal waaw mais tamit ci xam nga rek làmb ji ak fi mu toll ak tension bi ci am ak yooyu. ak enjeu bi sax laay wax moo tax ba nga xam ne fa mu ah, ba ñuy jeexal euh, ci ñaari cas yi xëccoo xawoon na fa am waaw mais encore une daal li ñuy wax que ni moom combat la ñuy bëre boo xam ne combat bu nar a metti lay doon ndax li ko nar a metti mooy Modou Lo daan bi mu daanoon Eumeu Sène Eumeu Sène revanche boobu la bëgg a jël si ba pare yore couronne roi des arènes te Modou Lo boobu ba tey mu ngi wër roi des arènes kon nag loolu moo lay wan ne combat bi moom déjà loolu rek moo ko metti waaw sans boo xoolee Modou loo ci la mu jóge muy defet ma seen jóge ci ndam loolu lépp boo ko indee teg ko ak euh, fi nga xam ne fi la làmb toll tey defe naa ne loolu day doy ka ni rek làmb ji mu enjeu bi metti ba yegg ci lool li ñuy wax daal mooy que ni ñoom ñaari mbër yi ay champion lañ ay professionnel lañ pour man si lu ñuy def ay royukaay lañu nañ ko doxe waxe ko ñi leen di gunge tamit jéem a roy ci jikko ñaari mbër yi pour que jàmm combat bi commence ci mën a jàmm jeex que le meilleur gagne tamit ñu tudde ko ku mag si réew mi wala si àddina bi sax muy Youssou Ndour loolu yëpp boo ko dajalee kon defe naa làmb jooju daal dañuy ñaan yàlla mu commencé ci bismillah rahmaan rahim jeex ci alhamdulillahi rabbil alamin que le meilleur gagne di ñaan tamit promoteur bi ko tëgg lim ci jublu yëpp yëpp yal na ko réussir wala lim ci séntu waaw ba tey ñu des ci combat yu mag yi nga xam ne ci juillet bi la Lac de Guiers ak Boy Niang jaar nañ fi tamit euh, def seen face à face dimanche mais kii di suñu lamb tam ñëwaat ci li nga xam ne ni mooy aspect mystique bi nga xam ne am na seen diggante maanaam guerre mystique bu tar fa leen jëm li nga xam ne ni mooy le 13 juillet. waaw loolu moom du ci mën a ñàkk parce que boo ñëwee mu monument de la renaissance moom di nga xam ne ñaari ñi moom côté mystique bi moom fàtte wuñ ko muy Boy muy Lac de waaw loolu tamit mooy lay wane làmb fola mais ku daanu wus kenn du bëgg a daanu loolu nag mooy li nga xam ne moo war a am parce que li tax mooy euh, dafa nekk loo xam ne nii làmb yooyu tamit ju metti la parce que Boy Niang defe naa li mu daan ci ay mbër géejawaay bëri na comme ni ñu ko defe naa su ma jumul sept wala six personnes na leen fa loolu nag soo ko boolee tey muy daan di daan nag bi ñëw ca ñi nga xam ne ñoom lañ tudde VIP wala mbër yu mag ya ndax Lac de Guiers euh, ak Balla Gaye ak Guy gi ak ñoom Abdou Diouf ak ñeneen ñi am na ci fi mu nekk nii tey géejawaay mën nañ ne ñoo fay magu mbër yi yaa ngi dégg am benn cër bi ci làmb booy ñan nag bëreeg ñamu loon daan leen ba ñëw ci ñooñu ah kon defe naa bu ñu koy préparé muy côté booy ñang di côté lak mystique dana ci feeñ bëri ki dem nag boo ñëwee monument moom kenn ci ñoom ñaar mayul sa morom dara déedéet te xam naa ni noonu la ñuy demee ca làmb ja la ca des nag mooy géew ba géew ba moom buñ ca duggee lu waaye di def moom dañ ko xam man maa la ko wax fii jàppal buñ yeggee ca géew ba nu ñuy bëree moom du bokk ak ni ñuy waxee parce que li tax mooy Euh, làmb ji fi mu toll la te am na loo xam ne li may wax rek communication bi am avant combat bokkul ak bu ñu yeggee si combat ba du génn diggante. Mhm. du benn. waaw boobaa bu ñu duggee si diggante bu ñu duggee si euh, enceinte bi calcul mooy des ndam daal di nekk loo xam ne mooy doon priorité mbëri ba tax na kenn du bëgg asaaloo li nga xam ne mooy sa combat Babacar ñu dem seeti ki nga xam ne tam mooy Reug Reug ginnaaw mu bëree Gris 2 li ba tey euh, jeexagul tudd nañ fi adversaire bu nekk ku nekk génn wax Forza tamit génn na wax ci li nga xam ne ni mooy Reug Reug mais moom it tontu na ko nee moom bu Forza day wax da koy pousse du ko tal pousse parce que du bëre ak moom parce que fu mu toll nii ki nga xam ne mooy Jordan mu daanoon Forza moom kooku la daan kon soxlawul ki nga xam ne mooy Forza. waaw Reug Reug di lan la wax dafa tontu maanaam comme moom ki ko daanoon dama laa daan yow ki la daan maa ko daan la ko wax mooy Jordan mi la daan man Reug Reug dama koo daan waaw parce que su ma jumul dafa daan Jordan ñëw bëreeg Elton daan ko ñëw ci Gris 2 waaw loolu nag làmb ay mbër lañu noonu la ñuy def di waxante ci commune ku nekk di seet nooy def pour wàññi sa morom ci wàllum psychologique yu mel noonu ñoom ñaar nag euh, ci làmb war nañoo mën a bëre pour man Forza ak rëg-rëg waaye nag mbër mi tamit am na droit ne man leneen moom a gënal rëg-rëg su ko neexee mu ne leneen a ma gënal. parce que loolu mooy làmba du ki nga bëgg a bëreel wala ki la làmb booleel ngay bëreel mm-hmm. déedéet di nga bëgg a bëree nit ki te doo du nangu bëri ak yow ñu ne di wëg làmb boole na leen te du tax bëree am waaw yaa ngi dégg loolu nag mooy moo am ci làmb ba nga xam ne tey du loo xam ne da ngay def tirage ne di wëg way daje par force ci làmb dóor loolu amu ci non non non làmb ja kay day fekk mbër mi pare ñaari mbër yi pare waxtaan ba juboo am promoteur fay ñu dóor a bëri mais ñoom ñaar bu ñu bëriwul tamit ku ne am na weneen yoon mën a aw pour bëri ak keneen voilà waaw làmb moom kenn du figé aussi kenn ku nekk am nga fi ay adversaires yu bëree bëri soo gisul li nga xam rek dem jëli leneen mu daal di yomb ba tey ñu dem euh, daal di dem si li nga xam ne mooy euh, drapeau chef de l'état fi amoon. kii di Alioune Sarr tam di président CNG daal def bilan daal ne bilan bu positif la si gis parce que macha allah organisation ren bi zéro faute la. waaw loolu moom alhamdulilah lañ ciy wax parce que tamit loolu mooy li nga xam ne moom lañ ciy soxla maanaam organiser xam ne nii. ah day jaar ci yoon commencé ci jàmm jeex ci jàmm te defe naa loolu am na mbuur parce que boo xoolee ni mu déroulé ak fi mu jeexee defe naa déggoo fa ñaxtu pour man déggoo fa yenn jàmbat yi te mbër yi nga xam ne ñooy mbër yu mag yi tamit teew nañu pour jëmmal bés bi parce que drapeau chef de l'état c'est l'état c'est le président kon defe naa dañuy féliciter ñu ko jël muy waa Thiès di leen wax ne tamit liggéey ah parce que liggéey moom moo ko defee rek fayee ko mais boo liggéeyul moom lépp lu ma wax rek ay sa liggéey moom dafa bokkul ak dara maanaam booy liggéey moom te mu jaral la la ngay def ak lu mu metti metti bés dañu ñëw nga am ci résultat xëy na Thiès loolu la ñu ndax boobu ba tey ñu ci topp mu ñu topp ci mu ba yàlla def ñu organiser ko si seen raison muy Mbour ñu ñëw jël ko par équipe gagné Dakar bi nga moo gañoon daaw 5-0 mu résultat boo xam ne moom vraiment bu lourd waaw loolu bu diis ak diis la ndax nag <laughs> xalaatoon naa sax waa Dakar mën a sauver honneur ah, mais 5-0 moom maa moom loolu dafa dafa dafa kawe loolu ma la wax sànq la rek liggéey moo moo leen ko maya ah. liggéey moo leen ko may général Malick euh, individuel bi gagné na ki nga xam mooy Libidor bu Grand Yoff wala Libidor bu Thiès waaw mais li nga xam moo doon enjeu bu mag a mag bi di rapproché de moom Thiès a ko rafle gagné juróom ci dara kon loolu doy na waar kon Fatick ak Diourbel ak ñëpp moom euh, nañu muñ rek <laughs> doy na waar daal. yaa ngi tooñ Dakar te Dakar moo tane Diourbel la. ah waa Dakar eh, Dakar ah tane Diourbel bu final woon kenn du ko gagné 5-0 loolu moom Diourbel bu final am kenn du ko gagné 5 eh, kilos la andi woon nag voilà Dakar ah. ana seen 100 kilos amuñu cent vingt euh, euh, euh, cent vingt bi dernier moment lañ ko jël te dafa feebaroon dafa amoon taab ñu ko doon jéem a camoufler pour mu ñëw bëre mais xam nga rek ku néewul ak cent pour cent ses moyens je pense que du lu ñu waroon forcer tamit erreur mënul weesu nga andi mbër Babacar di nëbbu ni am na blessure parce que du nekk à cent pour cent tam de ses capacités mënul a jox lépp lépp lépp waaw loolu moom du yoon moom en tant que pro moom boo yaakaar naa athlète bi pour bëre moom wala pour jouer bul ko sax xalaat a teg loolu moom erreur la ñàkkee moom yow yaa xañ sa bopp te leneen mën la cee fekk kon defe naa loolu moom erreur la waaw kon Dakar encore une fois di leen encouragé ñoom Ibrahima Mbaye ak Omes ak Cheikh Ndiaye ñi nga xam ne ñoom ñoo équipe am na fa ay yoo xam ne di làmb la ñoom Mamadou Seck bokk CRC bu ci Thiès ay ñoom Baye Sow ñoom dëkk Thiès di yëngatu ci wàllum làmb région de Thiès yëpp daal ñu ngi leen di félicité di wax ne que daal jël nañu ndam li waaye Diourbel moom bu final woon kenn du ko dóor 5-0 waaw <laughs> ah, yàlla baax na ah. ñu dem euh, si ba tey drapeau chef de l'État Leewtoo ñëw ak euh, jàngatam daal di gis ni euh, ki nga xam ne mooy région de Fatick fi mu jógee teg la ay victoire topp topp cinq ans di jël pays ci drapeau chef de l'État daaw ak ren mu wàcc Dakar gagné ko daaw ren nag moom nekkul sax si pojom bi quatrième place bi la jël. waaw loolu mooy li ma lay wax rek mm, liggéey la rek mm, liggéey moom mm, liggéey rek ay fay leneen du fay ah. waaw mbir mi moom amul ñu xool gauche wala droite liggéey la boo liggéey nag li ci des yàlla jàppale la xëy na kon région de Thiès wala boog région de Fatick dañoo liggéeyul. ren wala lañ daan def dañ koo bàyyi wala lañ daan tànne bokk lañ tànnewul parce que sëb la la ko bënn nga ca biir la xew ñoom xam nañ ko entraîneur yi ak ña ko géré xam nañ la xew kon ñoom nañu xoolaat parce que tam ku daan gañe di gañe taaw ñu gañe la nga jël deuxième ren mënoo sax am troisième yaa nga ba quatrième moom defe naa kon wàcc nañ bu baax a baax kon Fatick xoolaat leen seen bopp bu wér a wér a wér dañuy jeexal ak euh, Alioune Sarr ba tey euh, ci drapeau chef de l'État bi mu accordé conférence de presse mu mel ni Babacar baat tontu lañ gis ci euh, déclaration yi am démb ak tey démb kii di Moustapha Diop wax na ni Léopold Senghor la jëm pour li nga xam ne ni mooy combat bi war a dox diggante Modou Lo ak Eumeu Sène mais tamit ki nga xam ne mooy Alioune Sarr di président CNG ba muy def conférence de presse moom li mu xam ne mooy combat bi du amee feneen fudul fii nga xam ne mooy euh, arène nationale mu mel ni baat tontu la te dajewuñu woon. waaw loolu la de parce que xëccoo bi tar na seen diggante ah Moustapha Diop nag démb ku ne seetaan na ko nee na moom ministre bi jox na ko. kii yore sport bu réew mi pour mu war a tëgg Léopold Senghor ah ministre bi nag moo yilif sport bu réew mi waaw xaw ma ah, moom bu fekkente ne moom ba tey dafa jàpp ne arène nationale lamb yëpp di amee kon li ma lay wax la rek am na loo xam ne moom deesu ca ay wax parce que li jar ay wax kii promoteur bi nee na bi jox na ko pour mu tëgg Léopold Senghor que jiite lamb ji nee na lamb ji yëpp fële lay amee arène nationale kon def ay sa mooy le 28 soreetul te seetaan olof ne na moo dàq ci am ndaje nañ yónni yàgg rek bu yàggee dina indi dara moom waaw waaw ci loolu lañuy ñuy ñi nga xam ne ñooy suivre euh, revue de l'arène ñu daal di nuyu ki nga xam ne mooy yàgg maar ci caméra bi nuyu Ousmane si montage bi nuyu Momo Mané équipe Leewtoo TV bi yëpp Biram Ndeye Kumba Rose képp koo xam ne yaa ngi Leewtoo ñu lay nuyu di béggee ñëpp nga xam ne rek ñooy safoo Leewtoo comme ni ñu koy waxee à chaque fois. waaw waaw comme ñu ko waxee ah, di nuyu waa Leewtoo yëpp di nuyu ñëpp ah nuyu bi nag suñ koy commencé bu ñu neexee mën nañ lañu commencé ko ci calis mi nga am mooy borom kër gi di ko ziar di ko ñaanal jàmm ak ku mel ni Moussa Diaw ak ñi muy collaborer ñëpp ci liggéey bi ah duñ leen fàtte parce que wala foo koy wax ah feccum liir bu neexee rek nday jaati sa mbagg ya bu jàpp amul dara du mën a sotti kon waa Leewtoo encore une fois di leen nuyuwaat di leen ziar et puis di balu ak ñëpp parce que li am solo mooy que ni ay suñu nekkee des dina am ay quelques jàppal bàyyi parce que loolu mooy liggéey mooy tax liggéey avancé mais l'essentiel que lépp nañ ci jublu rek luy tax liggéey bi jëm ci kanam parce que loolu mooy nekk njariñ la après fois parce que euh, kenn du toog ci benn branche ba pare di ko gor wala soo ko dee def bëri woo xel te bu daanoo boo dëjoo moom yaakaar naa ndigg lu yàqu wala leen mën ko suuxat ñun ñëpp fexe mu jëm ca kanam waaye tamit ñaanal yàlla ku ci ne la nga ne ci réew mi di ca yëngatu yàlla teg ci loxo ba mu avancé jëm si kanam di nuyu internet yépp di leen ziar di leen ñaanal jàmm waa képp kuy suivre Leewtoo parce que amuñu seen fay encore une fois ñu mel ni kii sama gars yi ñoom Ndongo Fall Fatma Fall ñoom Khadiros tuuti yaay Sarr xam na da baax Norvège du ñu fàtte kenn ku ñu suivre rek ñoom Mamadou Gueye Tall bi Kempes doomu na yu yàgg mar Talla Ndiaye tamit Siri maa ngi koy nuyu ak Siri Naaba mais taxaw ma moo maane di ñaanal ñëpp jàmm di wax nekk Aysatu xol bu sedd yaram mu sedd yal na ko yàlla defal ñëpp barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñi joxe rendez suba incha allah.